fenn fu ñu ko amul traçabilité amul fenn kon euh, euh, teguwul fenn ñu récupérer suñu suuf parce que ñun li ñu soxla ci suuf doyuñu population bi rek parce que xale yi amuñu fu ñu dëkk amuñu gare routière amuñu euh, te Sébikotane tey ëpp nañu quarante mille habitants kon war nañu minimum hôpital type 2 war nañu ay cimetière décent li ñu soxla bari na gare routière amuñu ko parce que soo xoolee Sébikotane ñiy ñiy jaayee jam ñaajo 40 pour cent yëpp Sébikotane lañ dëkk ñiy jaayee kilomètre 50 40 pour cent yëpp Sébikotane lañ dëkk kon ñun soxla nañ loolu li ñu soxla nag comme euh, gouvernement bu bees bi fi nekk euh, ñoom xam li fi xew yëpp xam nañ ko parce que bañ fa demee président Sonko nee na xam naa ci dossiers yi loo leen ci xamul Sébikotane sama Sébikotane la kon ñoo nga am espoir euh, que ni mu taxaw ci.